أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لم تبورا والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratul maida ci kàttanu borom bi tey ñu fas yéene jël ñeenti aaya mooy aaya 57 58 59 60 aaya yi nekk sunu kanam liñ ciy jëlee comme ay njàng dana toll ci juróomi mbir mbir yooyu bi ci njëkk mooy xurmatu ittixaasi lyahud wa nasaara wal mushrikina awliya laa sayyama ahlu zulmi minhum mbokki julit yi bokk na ci li ñuy jàng tey mooy araamal gi yàlla araamal ci ñun ñu jàpp yahud ak nasaraan ak bokkaalekat yi def leen ay péete far ak ñoom rawatina nag ñi nga xam ne ci ñoom ay tooñkat lañ kon yàlla subhanahu wa taala dina ñu jàngal tey dina araamal sunu kaw ñu far ak yahud ak nasaraan ak bokkaalekat jël leen def leen ay péete allié ak ñoom far ak ñoom bëggante ak ñoom rawatina nag ñooñu bu ñu demee ba bokk ci ahlu zulmi tooñkat yi ci ñoom kon du jaadu ci ñun sunu borom subhanahu wa taala wax ak ñun ci alquran ba pare wax ak ñun ci téeréem bu màgg bii ne nangam laa daganal ci yéen nangam laa araamal ci yéen nun nuy delluwaat di utal sunu bopp ay yoon di daganal ay mbir yoo xam ne sunu borom daf ko araamaloon ci ñun ñu koy daganalal sunu bopp kon ndeke xaritoog yahud wala xaritoog bokkaalekat wala xaritoog ab nasaraan def ak moom alliance mbokk yi ndeke kon ci islaam lu araam la yàlla moo ko tere loolu mooy lu njëkk lu ñuy jàng tey ñaareel mooy suu axlaaqul yahud wa fasaadi uqulihim suu axlaaqul yahud ñaaw gi nga xam ne ñaaw na ko jikko yahud yi yahud amul jikko bu baax lan moo tax mooy seeni xol moo yàqu xel yee yàqu nit bu xelam yàqoo olof yi dañuy wax ne dof xel bi du tey lu tax dof xel mi du tey mooy xel mi daa yàqu nit bu xelam yàqoo dootul bañati dara lépp lay def loolu tax islaam naan ñu laa diinu liman laa aqla la ku amul xel amoo diine yahudi nag seen jikko yee yàqu su axlaaqihim li waral seen jikko yàqu mooy seen xel yee yàqu nit bu xelam yàqoo jikkoom day yàqu loola tax lu bon li ngeen di gis ci àdduna bi yëpp yahudi yee ko fi indi góor jigéen yahudi yee ko fi indi giin góor ñi góor yahudi yee ko fi indi njaaloo ñoo ko fi indi sàngara ñoo ko fi indi mbooleem lu ñaaw lu yàq nit da ngay gis yahudi yi seen ñoo ko fi indi moo tax yàlla ne seen jikko yi ñoo yàq su axlaaq al yahud wa fasaadi uqulihim su fekkee na ñii seen jikko yi dañoo yàqu ñu bëgg leen jël def leen ay royukaay di leen déglu allié ak ñoom di bëggante ak ñoom li muy tekki mooy ñoom nanu mel lan nuy wàll ñoom lañu gëm lan ñuy jox ñetteel mooy shuurul yahud bi fisqihim wa ba- wa baadu dalalihim jacalahum yacmaluuna ala idlaali almuslimin waaw suul yahud shuurul yahud yëg-yëg gi nga xam ne yahud yi dinañ ko yëg bi fisqihim ci seen kàccoore ñoom ci seen bopp xam na ne ñoom ay kàccoor lañ loolu yàlla daf ñu koy jàngal ak baadu dalalihim ak lenn ci seeni réer jaalahum yamaluuna ala idlalil muslimin looloo tax ñuy fexe di liggéey pour réeral jullit ñi wax moo tax jullit yay nelaw rek mais yahudi yi moom nelawatuñu guddi ak bëccëg mbooleem musiba tey bu dal jullit yi pexe yahudi la ndax ñoom xam nañ ne ñoom ay kàccoor lañ xam nañ ne dañoo réer dañoo sànku looloo leen jural ñuy liggéey pour réeral jullit yi kon ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ war naa leer ci ñun leer bu bir ne saa yi ñu toppee yahud alku saa yi ñu defee ay yahud xarit allié ak ñoom wékk leen sunu àdduna duñ ci jële lu dul toroxtaange ndax yàllaay ki nu ko wax loolu mooy ñetteel ñeenteel mooy taqrir wujudul masxi fil yahud qira wa xanazir danañ jàng tey xeet wi di xeetu yahud mbon gi nu mbon jural na leen sunu borom subhanahu wa taala def ci ñoom ay golo ak ay mbaam xuux xeet woo xam ne egg nañ ci mbon ci tooñ yàlla ba yàlla jàpp leen soppi leen ay golo ak ay mbaam xuu xam ngeen ne xeet woowu dunu royukaay te yahud yi tolloon nañ ci jamono ak seen boroom mere gu mu leen mere mu soppi leen def leen ay golo te loolu am na sabab waaye yemul ci def leen ay golo waaye def leen ay mbaam xuux moo tax yahud yëfu golo ak mbaam xuux rek la ñuy def ba léegi masaa yooyu yàlla masaa woon leen defal leen golog mbaam xuux moo tax it yooyu la ñuy def rek yàq rek foo fekk yahud yàq lay def du defar mukk juróomeel al yahud sarru naas makaanan yowmal qiyaama yahud yi ñoo gën a yées ci doomu aadama yi place bu leen yàlla dencal ëllëg yowmal qiyaama te du leen du dul safara waa dallu naas fi haasi dunia ñoo gën a réer nit ñi ci àdduna bi nu nekk ci àdduna ñoo fi gën a réer alaaxira yowmal qiyaam yàlla safara la leen jëme kon mbokk yi nit ñu mel nii ci mbon nit ñu mel nii ci mbaame nit ñu mel nii ci yàqute ndax dana dagan ay jullit def leen ay soppe ay jullit di allié ak ñoom ay ñu invité ay jullit ndogu jullit yi dem ndax dana dagan su fekkoon ne tey jullit yi xam nañ seen diine xam nañ li leen yàlla jàngal ci alquran kon duñ def yahud yi ay xarit ba ñu ñuy woo ay ndogu di ñu financer ay projet ñu koy jël du ma fàtte mukk bi ñu nekkee LTS du noonu la de LCS ah LCS ndeysaan télévision booba mos doon naa organiser concours alxuraan boo xam ne ña ko financé mooy ambassade Israël ambassadeur Israël moo ko financé woon concours alxuraan boobu xoolal liy jullit tey ci àddina bi lii réew yi jullit ci àddina ak liy jullit ci àdduna buñ demee ba ñuy ambassade Israël di organiser concours Quran xam nga ne loolu moo lay wan ne nit ñi jàdd nañ seen yoon ndax jullit ñi amuñ ñu leen war a organiser le concours Quran ah kay waaye ñàkk organiser ba ma laajee directeur ba ndeysaan directeur ba woon ma ne ko waaw man dama jaaxle de mu ne ma la moo la jaaxal ma ne ko mais concours alquran bi nga organisé mais lan moo tax ambassade Israël di ko financé mu ne ma damaa wër ci réew jullit ñi ba sonn di awma ku ko def moo tax Israël def ko damaa wër ba sonn ci ambassade islam yi nekk fii ci biir Sénégal awma ku ma financé pour concours bi am waa Israël daal di koy jël ambassade Israël ñu invité ko fi benn émission mu def ko ba pare ñu proposé ko mu nangu ko ndeysaan yal yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk yi juróomi tomb yi lañuy jàng tey mooy araam na ci ñun ñu jël yahut ak nasaraan ak bokkaalekat def ko xarit def ko péete rawatina bu dee ci tooñkat yi la bokk bokk na ci ñaawu jikko yahut ak seen xol yu yàqu yi seen xel yu yàqu yi bokk na ci kàccoorug yahut yi ak réer gu ñu réer ba pare di def ay financement ay projet pour réeral jullit yi bokk na ci sunu borom mere gi mu leen mere woon ba soppi leen ay golo ak ay mbaam xuux bokk na ci yahudi ëllëg yàlla dencalu leen dara yowmal qiyaama lu du safara ndax ñooy ñi gën a réer ci nit ñi suñu ñeenti aay yi ñuy jàng tey ci juróomi mbir yooyu lay wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وعدل عن سواء السبيل سنبرم ya ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm mbokk yi bu nu xoolee bu nu seetloo lenn ci ñetti fan yi nu génn danañ gis ne aaya yi buñ koy tàmbali yépp yàllaay woote bu démb ci mujj yaa ayyuha allazina amanu la yàlla wax bu barki démb it yaa ayyuha allazina amanu la yàlla wax kon ndeke la muy tekki mooy ndigal la yàlla di joxe ordre wala muy tere ab julit saa yu déggee ñu ne yaa ayyuha allazina amanu na ne tekk taxaw na nuroog oto buy daw ci tali feu rouge tàkk nu muy def ah day taxawal day brûler day taxaw ndax feu bi signalé rouge dafa am lu tax mu signalé ko ab julit saa yu déggee yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm na ne tekk dafa am ku koy woow koo xam ne mooy boroomam moo koy woo te woowu ko ci turam woowu ko ci xeetam woowu ko ci nation woowu ko ci askanam woowu ko ci melokaanam bal def ko woo ci benn baat muy baatu ngëm yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi ne yéen a ma gëm kon ñi gëm yàlla saa ñu déggee yàlla wax loolu lu leen war mooy nu na tekk déglu ndigal la yàlla di joxe mu ne laa tattaxisu bu leen jàpp allazina ñi nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp diinakum seen diine ji di islaam huzuwan def ko caaxaanukaay gis nga yahudi lan lañ jàppee islaam mooy caaxaan yàlla ne yéen ñi gëm yàlla bu leen jàpp mu démb lan la waxoon yaa ayyuha allazina amanu laa tattaxisu man yartadid mi an diinikum barki démb mu ne yaa ayyuha allazina amanu laa tattaxisu adduwi wa adduwakum semaine ñetti fan yi nu génn yépp yàlla def nuy woo ndeysaan ci baatu ngëm mu ne laa tattaxisu bu leen jàpp bu leen def bu leen jël allazina gaañ a nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp dañoo gëm ne ñoom diinakum seen diine jii di lislaam xuzuwan caaxaan la maa yuhza'u bi wa yusxaru minhu wa lu'iba wa la'ibu maa yal'abu bi yéen ñi gëm yàlla ne mooy seen boroom ngeen gëm muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen yonent ngeen gëm ne islaam mooy seen diine gis nga baatu ngëm ñett yi ngay boole mu doog a nekk ci yow dëgg ne yow gëm nga yàlla saa yoo déggee yaa ayyuha allazina amanu ñett mbir yi ngay boole nga bokk ci ku ci benn manqué bokkoo ci mooy da ngay gëm ne yàllaay sa boroom nga gëm ne muhammad mooy sa yonent nga gëm ne lislaam mooy sa diine ñett yi boo ko defee bokk nga ci yaa ayyuha allazina amanu boo ci bàyyee benn génn nga ci gëm gi ngay gëm ne yàllaay sa boroom lu muy tekki ci yow mooy lu mu la wax nga def lu mu la tere nga bàyyi ndax nee nga mooy sa boroom gëm gi ngay gëm ne muhammad mooy sa yonent mooy moom moo may won nu nuy jaamoo yàlla sama jaamu yàlla duma ko jële ci kenn lu dul ci moom gëm gi ngay gëm ne islaam mooy sa diine mooy lii di diine jii di lislaam aw dundin la wu ma yàlla indil ma war koo dund ci kaw suuf aw tëralin la aw doxalin la wu ma war a doxale sama dund loolu mooy al islaamu diinin islaam aw doxalin la woo xam ne lépp lu may def ci sama dund damay xool naka la ko lislaam bëggee ma defe ko noonu ñett yi mooy yàllaay sama boroom muhammad mooy sama yonent islaam mooy sama diine soo defee ñett yi rek nga bokk ci ñi gëm nanu xool nag nun tey ndax sunu dund gi nuy dund ndax ñett yi matal na ko këj ndax nangu nañu yàllaay sunu borom ndax nangu nañ ne yonent bi mooy sunu yonent mooy ndaw li yàlla yónni ci ñun ndax nangu nañ ne lislaam aw dundin la ndax nangu nañ ko ñu xool sunu bopp ci ñett yi yàlla ne na laa tattaxisu allazina ittaxasu diinakum al islaam huzuwan say an yuhzauna bihi ñii di jël islam def ko kokkali kaay kokkali waaw islam fowukaay lañ ko def mbir moo xam ne dañ koy fowee ndax l'islam mbokk yi nit da koy fowee waxuma la yahud yi dañ koy def mais tey jullit yi ñoo koy def jullit yi ñooy fowee islam waaw waxuma la yahud yi de jullit laa wax jullit ñooy fowee diine xoolal baat bii di baatu laa ilaha illa allah nga xam ne moo tax yàlla bind asamaan moo tax yàlla bind suuf moo tax yàlla bind aljanna moo tax yàlla bind safara moo tax yàlla bind jant moo tax yàlla bind weer moo tax yàlla bind montagne xeer yeeg suuf yi moo tax yàlla defar géej yeeg dex yi moo tax yàlla defar njanaaw yi ak rab yi ci àll bi baat boobu moo tax yàlla yónni yonent yi baat boobu moo tax yàlla ne yonent yi jël leen jaasi képp ku ko bañ a wax dagg leen boppam xeex leen ak moom ba ñu wax ko mbokk yi baat boobu tey ci fii ci Sénégal dañ koy fawe ah ay sabar lañ koy booleel ay ndënd ay pàkkar ñi ak ay tëyëxu wala ah wala gisoon loolu ngeen baal ma ci baat bi de koor la dañoo woor jàkk lañ nekk waaye loolu mooy li am waaw laa ilaha illallah tey fii foo fekk ñu koy wax ay xiin lay àndal tourné tourné ñëw ne rëll sa ndigg ci laa ilaha illallah bu ngeen ko gisul ngeen wax ma ko waaw ba pare waxuma dara sax loolu mais ci ñun fii kër gu nekk kuréel gu nekk da ngaa ut sa terme bopp boo koy waxee bokkoo kook sa morom façon façon laa ilaha illallah boo ñëw Sénégal am na fi façon laa wax de bu ngeen bëgg am na Sénégal façon kër gu nekk yor nga façon terme booy tuddee laa ilaha illallah loolu mooy jàpp diine fo loolu nag yahudi ya ko doon def yahudi ñoo doon jàpp islam fo la bu ñu déggee nodd naan waaye lii mooy lan ah imaginel ñun tey loolu yàlla doon tere yahudi ñun ñu nekk ci mooy jël diine def ko fawukaay na xummute dagan loxo ci kaw bàkkaar ci suuf gaa yi fettas moo tax Sénégal lépp ay woy la ñépp a ngi woy waaw guddi yëpp ay yuuxu la ba waxee ñu ne dañuy way yonent bi wala dañuy tudd yàlla nañu way yonent bi amul ci alxuraan way leen yonent bi amul ci alxuraan ban saar la ban aaya la waxee la ñu ne sayyidina muhammad commencé di yuuxu loolu amul ci islaam amul fenn fu ñu koy gis ci téere yàlla mu ne way leen yonent bi amul amul fenn fi yonent bi wax woy leen ma pourtant amoon nay woykat jamonoom de ndeysaan yonent bi mu génnee àdduna ñu denc ko Fatima dafa jàkkaarloog Bilal ne ko Bilal naka la seen xel di dalee naka la seen bakkan ak seen fit di teeye ngeen jël ku toll ne Seydina Muhammad gas suuf si ba mu xóot di ko ci dugal bilaal bi ngeen di jël muhammad di ko dugal ci biir suuf si seen yaram dawul ndeysaan bilal ne fatima fatima lii nga gis ñu def innahu amrun min awamirillah lii santaane la ci santaane yàlla yi yàlla ne minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla ne suuf laa tibb bindi leen su ngeen faatoo ma delloo leen ci biir suuf su ma leen soxlaa ëllëg yowmal qiyaamati ma xë- fëgg suuf xar ko génne leen ngeen uy si ma Fatima sa baay bu bëggoon bi mu faatoo bu dénkaane woon nañ ko teg ci piliyaanu or yëkkati ko ba mu laal asamaan ñun danañ ko def waaw ku ngeen di bëggoon ñu way ko gaa yi way ko ku ngeen di woon saaba yi dee leen ma way su ma xëyee rek sol sama grand mbubu sol samay marakis kaalaw jiitu ngeen topp ma ah naan abdallahi mooy baayam amina mooy yaayam makka la juddoo madina la faato loxo ci kaw bàkkaar ci suuf gars yi naan est-ce que kon yonent gars yi def ko amul benn njëriñ makka la juddoo loolu xam nañ ko bu yàgg madina la faato loolu wóor ñëpp xam nañ ko abdallahi mooy papaam loolu dafa leer nañ amina yaayam loolu kay benn sikki nekk ci problème bi nag mooy moom moomu ngay woy li mu indi yow foo ci toll lim la indil muy diine lislaam yow foo ci toll yow yow moom di ko woy foo ci toll amoo ci dara lu dul woy guddi gu nekk rek ñu def ay baas rey ay nag lekk cere def ay lampe verte jaune rouge ay manq woykat yi di woy rek ñi sànni xaalis ñu raatal def seen poche dem loolu rek lañ ci am waaw ana ñu bëgg Mouhamed gaa yëgil seen loxo waaw yenn saa yi woy dañuy woy ba woy bi tàng ñu ne ana ñu bëgg Mouhamed gaa yi jóg jaayu leen ci waay ñu bëgg Mouhamed jaayu leen ci waay jaayu leen gaa yi di jaayu di tëb di tëb ku bëgg Mouhamed loolu ngay def da ngay jaayu di fecc inna li man gis naa ko ba tàyyi gis naa ko sax ci jàkk ñuy tëgg taabal yi gaa yi di tëb di tëb di tëb ci biir jàkka ji xoolal loolu rek ne dañuy woy Muhammad fecc leen ku ci fecc dagan na fecc ci bis bi yonent bi juddoo dagan na ñu ne maanaam loolu lañu yàlla di tere mooy tëndiku leen ñi nga xam ne dañoo jàpp diine jii di diine lislaam def ko diine fawukaay laa tattaxisu lazina bu leen jàpp ñi nga xam ne ittaxasu dañoo jël diinakum seen diine jii di islaam huzuwan def ko mbóorant def ko caaxaanukaay waaw loolu nag bu ko yàlla tere yahudi yi masama ak ñun ñu jullit lan lañ ko jël laiban def ko fo ndeysaan huzuwan wa laiban su yàlla ne ñeneen ñi yéen ñi gëm yàlla bu leen topp ñi foowe seen diine kon ñun ñi nga xam ne ñoo moom diine ji lan lan wax ah mbokk yi su yàlla ne bu leen jege yahud ak nasaraan ndax ñoom dañuy fowe seen diine dañ koy caaxaanee kon ñun ñi nga xam ne ñoo moom diine ji lan lan nu sant waaw mais ñun ñooy fowe diine ji de xoolal théâtre yi ñuy def ci télé bi théâtre yi ndog yi da la ñuy sabote ah diine bi ak woote téléphone yi woote ci weeru koor gi ah naan dañuy maye dañuy lépp dañuy def ay mufti ay mufti lañ am na benn waay boo xam ne mu ngi télé télé yu sundur bi nu mu tudd xaw ma rajo yu sundur bi nee na moom mufti la gars yi dañ koy woo daa ko dama biddanti naan tuuti ndox mu ne dara nekku ci wala gars yi di ree daan ko wallahi oustaz yëpp yaa leen raw borom xam-xam yëpp yaa fi gën a foor waaw ku foon sa jabar ci weeru koor rek mu ne dara nekku ci da ngay joxe rek ñaari paquet suukar boo ndogoo wala diine bi lañ jël di ko caaxaane xamuñu diine lislaam ni mu màggee mbokk yi lu bokk ci diine kenn du ko foye diine dafa màgg diine dafa rëy rawatina nag su ko yàlla teree subhanahu wa taala mais fii bu dégg bëccëg loolu ngay gis waaw balaa sabar bi neex rek balaa jàng yi neex rek sabar yi ñëw fecc gi ñëw jigéen ñi fecc góor ñi fecc la ilaha illallah am na benn waay benn góor ndeysaan bu bu jabara bu doomam amoon doom góor gi ko sëtama juddu mu ne fii kenn du fi musique gars yi dem kaw dem suuf mu ne kenn du musique ndax yéen maay seen baay ba ngeen juddoo musique uma leen kon man duma fi am sët ñu fiy musique gars yi daal dem uti benn jàngkat bu tudd Mbay Njaay Sàmb xaw ma noonu la de ah Mbay Njaay Sàmb ñu indi kasetam ñu teg kaset bi tabala yeeg fecc gi góor gi di gis gaa yi ni ñuy def xam nga loolu day ànd ak ñi ne laa ilaaha illa la góor gi di gis gaa yi di fecc tabala yi rëkk gaa yi di fecc tabal ba caag mu ne musique leen ñu ne ah mu ne ndax damaa xam ne lii ak musique bi benn la musique leen waaye léegi mën ngeen am musique ndax la ma leen doon tere ci musique bi yéen a ngi koy am fii benn kese la imagine leen jàng yoo xamante ne sabar yi mooy gën a neex sax fecc bi bu ñu tegee musique bi ndax yenn saa yi sax ñu teg musique boo xam ne nit ñi dañuy toog kenn du yëngu waaye tabala yoo xam ne sa waay baas bi ñëpp ay bokk tëb mag ak ndaw góor ak jigéen ah loolu kay xam nga ne baa bi ne leen musique leen loolu nag léegi li gën a garaaw tey ci Sénégal soo taxawoon nga ni lii du diine boo leen romboon rek ne lay xam ngeen ne lii du diine de gars yi dab la dóor la ba nga dee te pourtant du diine de yow mi koy romb xam nga ne lii du diine ñoom ñi koy def xam na ne lii du diine waaye ndeysaan kan moo ko ñemee weddi ndax diine ji moom ñëppay fo moo tax kenn du wax kenn yaa ngi fo ndax dañuy wax soo waxee yow da ngay fo ñu ne itam démb da nga doon fo waaw dangaa fo ba pare ma fo ñëppay fo fi fii ñi fo rek dara lañ dundalul diine moo tax diine ji tumaranke ndeysaan kon dananu aay yu mel nii dananu jàngal mbokk yi li ma li ñu doon wax barki démb ak démb di ko wax bis bu nekk loolu la ñuy répété waat tey alxuraan du téere barkeelu gis ngeen semaine bii nu nekk yëpp daanaka fukki fan yu mujj yi ay luwaa la nu yàlla di jox yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhal lazina amanu yi moo takkar naa sa sunu kaw yàlla daf ñu bëgg a xamal ne diine du lu ñuy fowee diine lu ñuy def ay théâtre diine ju lu ñuy woy alquran bii du téere boo xam dañ koy woy gaa yi jóg ku nekk jël aaya ñuy xëcc jaar ni ñuy xëcc jaar nii waaw bu ngeen demee ci internet bi di ngeen gis ay orchestre yoo xam ne ah alquran la ñuy woy ay aaya waaw gaa yi riiti riiti ba mu neex leen nga dégg waa ji ne yaa ayyuha alladina amanu dam leen ngeen xool jël ay alxuraan ci biir musique loolu nag même bu ko ay jullit di def sax jullit yooyu dañoo réer kenn warul wax ne man gis naa ñoom sàngam def nañ rek kon dagan na loolu moo indil Sénégal problème ñoom diw def nañ ko dagan na bu sa jabaru sëriñ xeesalee nga ni sa jabar xeesalal ndax xeesal bu araamoon kon jabaru sëriñ bi du ko def mais jabaru sëriñ bi mën naa tarxiis daanu ah waaw bu sëriñ bi daanoo def dara ñu ne loolu dagan na dara nekk ci parce que sëriñ bi def na ko mais sëriñ bi mun naa daanu yow da ngay xool ndax lii waa ji def ndeysaan benn waay nee na dama woor ànd ak sama mag ñu dem ziyaara ji sunu pap sunu sëriñu papa ñu ñëw mu indi añ teg waaw ñu ne ko ñun danoo woor mu ne noono ñun ku nu gëm doo woor añ leen mag ji añ rakk ji bañ te man duma woor duma duma añ dama woor ab jullit day gëm santaane yàlla boo bëggee xam ndax jullit nga rek xoolal yow santaane yàlla fan nga ci tool xoolal tere yàlla yi foo ci tool mu des su jullit tarxiisee tekkiwul ne jullit boobu lu mu rëy rëy màgg màgg màgg màgg su tarxiisee daanu bul jël loolu nga ni loolu dagan na déedéet moom ñaanal ko yàlla mu jéem a dellusiwaat waaye bul ne moom lim def dagan na waaw moo tax ñuy wax isa zallal aalim zallal awalim su borom xam-xam daanoo rek day daaneel ñu bëri ci ginnaawam ndax ñi nekk ci ginnaawam da naan kii li muy def baax na amoon na benn dëkk bu tudd Madina Njaaj be Madina Njaaj be sëriñ bi fa dëkkoon borom xam-xam bu mag la waaw ku mag la ci diine mais mujj dundam dafa doon naax suñuy julli bu taxawee ci sàppe bi du jiite mais bu taxawee ci sàppe bi premier sàppe ci wetu imam bi dañuy gis mu naan nii di tourner de gauche à droite naan nii comme mooy souvent ilimaan bu jàngee ba ne wala dolliin nga dégg ko waaye nag amin tourne ni gauche à droite yo fecc fecc yu neex yooyu daal taxawaat léegi nag i paa boobu daf ko doon def sëriñ bu mag boobu yeneen paa yi nekk ci ginnaawam nga xam ne moom lañ gëm mooy seen sëriñ commencé di ko def doomam ne leen hey yéen yéen li ngeen def daganut de kii xam ngeen ne mag la léegi kii kenn waru koo topp ci li muy def yéen ngeen koy def lu tax jaaduwul maanaam nit ci diine kenn du wax ne kilifa gee ko def kon ñun tam dañ koy def rawatina nag bu dee lu yàlla tere la rawatina nag yàlla ne bu ñu bu ñu bu ñu jàpp yahud yi ndax yahud yi dañuy fawee sunu diine di ko fawee mu ne min allazina ci gaa ñi nga xam ne utul kitaaba dañ leen a joxoon ay téere min qablikum ñi leen fi jiite woon te mooy yahut ak nasaraan ñoom dañoo jàpp seen diine ji di lislaam muy caaxaan ak fo kon yéen bu leen leen bu leen leen def ay mbokk bu leen xaritoog ñoom bu leen leen jàpp mu ne wal kuffaara ak yéeféer yi awliya bu leen leen def ay soppe gars yi ku yàq sunu diine di ko fowe ah di ci dugal ay caaxaan xoolal tey ji bu ngeen demee ci internet bi ngeen gis imam bu jigéen di jiite ay góor ah gisu leen ko ba pare ci biir jàkka jooju ñu ne dañuy jullee rang bi góor jigéen góor jigéen ci benn sàppe góor ak jigéen bokk ko waxuma loolu sax mais imam bi jigéen la États-Unis d'Amérique Amérique ah yahud ya ko def di tooñ jullit yi te xoolal li doy waar ci loolu tey dañuy tooñ islam su fekkente ne am na ñoo xam ne mënuñu muñ loolu fayu nañ ñu ne gis ngeen l'islam de mi ngi nii est-ce que mës ngeen gis jullit yi ñoom di tooñ waa église doo ko gis mu doo gis mu julli ñu di tooñ yahudi ci seen jaamu yàlla waaye ñoom xoolal julli ñoo leen gën a tey ne jigéen du jiite ci islam yonente sax dafa ne laa laa yuflih qawmun wala amrahum imraa même xeet même xeet boo xam ne président bi jigéen la wala premier ministre bu jigéen gis ngeen Sénégal bi ngeen amee premier ministre bu jigéen lan la leen yàlla natoo bato la joola seetlu leen loolu xeet woo xam ne jigéen moo leen jiite yonent bi nee na xeet woowu duñ texe laa yuflih la wax duñ texe keroog boobu laay waat di jëlee premier ministre bu jigéen bàyyi góor ña la yàlla suuxal ba ko la joolaa ñaata nit la ah ñaata nit ñoo ci dee ci liñ wax ci liñ wax ci liñ compté woon ñoom da nekk ci bato bi kenn da koo xam ah moom mooy deuxième Titanic ci àdduna fan la xewe moo ko raw kon alhamdulilah gis ngeen fan la xewe ba ngeen jiitalee jigéen ci Sénégal ñoom ñu jël jàkk ba pare ndaw si di jàngal Alxuraan de muuru muraay bu doy waar julli bu doy waar daanaka dañ doon saboté rek di saboté su ngeen demee nii internet bi gis ko te du benn yoon de yu bëri la yu bëri ñu filmé ko mu ngi ci YouTube bi ku dem léegi rek defal nga def ko di nga ko gis defal imam bu jigéen rek di nga ko gis léegi mu nga gis ko maanaam yu mel noonu la ñuy def su jullit ñi waxee ñu ne jullit ñi mënuñu amuñu tolérance xoolal li ñu doon def waa Danemark li ñu doon def Seydina Muhammad waa Sar Libdo jël yonent yàlla Muhammad def ko ay bomb boole ko ak ay jigéen ah di dessiner lu leen neex biñ leen reyee lu xew ñëpp di kaas di marche je suis Charlie di ko bind ci seen i semis seen président sax dafa dem dimbali yoon waa Charlie seen ah yal na yàlla dimbali sunu borom nee na yéen ñi gëm yàlla ngalawaay bu leen jàpp ñi nga xam ne dañoo jàpp lislaam def ko fo ak caaxaan ñooñu ñooy ñan mu ne min allazina utul kitaab ñooñu leen joxoon démb téere yi mooy yahuud ak nasaraan yi min qablikum ñooñu leen fi jiitu woon wal kufaara ak yéeféer yi bu leen leen jàpp def leen ay xarit awliya ay péete ndax ñoom dañuy fawe lislaam waaw léegi nag lii su ko yàlla waxee yéeféer yi ne bu leen jàpp yéeféer yi yahuud yi ak nasaraan yi ndax dañuy fowe lislaam kon jullit yi fowe lislaam ñun lan lañ leen war a def waa mbokk yi ah nga dëkk ak jullit buy fowe lislaam waaw jullit buy fowe lislaam di fowe diine xoolal yàlla baat bi mu ci teg mu ne wattaqullah ragal leen yàlla in kuntum muminin bu dee gëm ngeen su dee gëm ngeen yàlla na ngeen bàyyi yahud yeeg nasaraan yeeg yéeféer yi ngeen def ay xarit te ñuy yàq diine kon bu dee gëm nga yàlla ragalal yàlla jullit bii nga dëkkal muy fawe lislaam ba ko ba ko waaw tey bu fekkoon ne ku dëkk ci quartier bi di yàq diine ji soo xëyee kenn du la nuyu boo dee kenn du la dugal ci jàkk ji kenn du la jaale ji kon léegi nit ñi jub ay li tax Sénégal doy waar moom naa naa féq yee fi bëri da ngay gis sa saay saay bandi sindax unk yalt bu dee ñu jagat jagat de yóbbu ci jàkka ji ak di seede ak di woy ay kilifa naan nañ ñëw jullee ko parce que ku baax la woon lan la doon liggéey da doon way musique musicien la woon wala rappeur la woon wala mbër la woon wala ah wala indi leen wala wala wala ñu dem wooy kilifa yi ñu ne kaay leen ngeen julleeku waaw ñooñu it nga gis yenn saa yi ku ñeme yàlla koo xam ne bu ñëwee danaan kii dem na aljanna kii aljanna la jëm direct ndax diw moo ñëw gis nga seen affaire u caaxaan yooyu ngeen nekkee yooyu eggul ci yàlla xanaa xamuleen ne sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nit dee na mu sangu ko ak ay loxoom mu sangu ko ak mantoom bi mu daan jiite ajjuma dugg ci armeel yi gaspax ba mu xool dugal ko ci mu bëgg a ñaan yàlla mu ne ko kii ma nga safara jarul ngay ñaan waaw Muhammad moo def loolu kon nag keneen waxi noppi Abdullah bun Ubay bun Salul moo dee biir Médine doomam ñëw ci yonent ne yonent dimbali ma ngir yàlla rek nga sangal ma sama baay yonent bi jóg sang ko mu ne yonent maa ngi lay ñaan am na benn yére boo doon sol ajjuma di ko jiite eh waay waay waay waay waay dimbali ma ngir yàlla ñu sànge ko Omar lànk ne yonent yére bi moom du ñëw Omar ne ma yonent bi ne Omar maa moom sama yére bàyyil ma sàng ko ñu sàng ko yonent bi jullee ko pare ñu yenu yóbbu armeel ya yonent bi gas ba mu xoot dugg ci biir suul ko bëgg a ñaan yàlla mu ne ko bul ñaan astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum wala loolu du aaye beneen aaya ba ca suratu tawba yàlla mu ne ko soo ko jégguloon sab'ina marra lan yaghfir allahu lahum soo waxoon soixante-dix fois yàlla du ko baal yonent bi nee na su ma xamoon soixante-dix yooyu su ma ci yokkee yàlla baal ko dinaa ko def dinaa ñaan ndax yonent bëgguloon nit dem safara waaye xoola yàlla da ko tere ñaan ba pare avertir ko nag ne ko beneen yoonee ku mel nii bu dee bul taxaw ci bàmmeelam waxuma la ak nga naan da ngay ñaan waaw su fekkee yonent moo def loolu kon kon keneen waxi noppi kon bu yeboo ku fi mën a dee bu dee ab caaxaankat la woon bu dee ku jaamul woon yàlla la bu dee ku gëmul woon yàlla la wallahi alazim ki gën a màgg fii ci Sénégal ñu def ko kilifa diine su ko jullee tus la ko dul jëriñ tus alxayru la yanfau illa li failihi lu baax du jëriñ lu dul ko ko def tukulóori nee nañ saa nokki maaro a waɗe hoƴƴuɗuma tinata ko no wuli kono andata sina safi bu ndogo jotee ñu tegal la boolu ginaar mu ngi tàng jër nga yëkkati benn ginaar bu ne lumu au lieu nga xamp nga teg ko ci sa doq naan ah ah du dëgg de yëgoo saf na xam nga loo yëg dafa tàng waaye yëgoo safaay kon jaamu yàlla yow dong lay jëriñ jaamu yàlla yàlla alxuraan loolu wax man amila saalihan fa li xayrihi man amila saalihan fa li xayrihi loolu mooy aaya bi man amila saalihan fa li nafsihi ku def lu baax yàlla nee na sa bopp nga ko defal defaloo ko ma sàmb defaloo ko ma demba kon boo jullee julliloo kenn gaa yi nee na ñaamanam ñaamataa ko yaranam yarataa ko ɗaanono kam ɗaanotaa ko ah ñaamanam ñaamataa ko lekkal ma kaañ ndogu lekkaaleel ma sama waal doo suur de boo amee ñetti fan alaxira nga jëm boo lekkul kaay leen ñu nelaw nga ne nelawal ma sama waal ba mu am ñetti fan hôpital nga jëm waaw waaw yooyu sa bopp rek yaa koy defal sa bopp waaw yaa koy defal sa bopp jaamu yàlla yaa koy defal sa bopp waaye nit ñi di jaamu yàlla nga dem tëdd di nelaw ba nga dee ñu ne kilifa googu moo ko jullee dërëm aka neexoon nag ndeysaan waa ji doon jaamu yàlla kilifa gi ñëw jaamu yàlla ñëw ñëw ñëw julleeku julli di ñëw julleeku loolu de tiyaaba bu rëy la yonent bi nee na ñetti sàppe ku ñu jullee àjjana nga jëm yonent bi nee na 40 personnes yu dul bokkaale suñu jullee nit àjjana la jëm 40 yu dul bokkaale allahu akbar waaw mbokk yi fu ñuy jëlee loolu kan ci ñun mooy dee 40 personnes yu dul bokkaale yàlla taxaw ci sàppe yi julli la ndax bokkaale nu mu bëree tey ashirku axfa min dabibi nam la bokkaale dafa sew comme tànki xorondom tànki xorondom xam ngeen ko xorondom mooy melentaan bu ñuul bu nekk ci xeer wu ñuul ci trois heures du matin ñu ne la xoolal tànk yi ndax di nga ko gis noonu la bokkaale sewee waaw dal nañ yàlla def woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla na yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk jullit yi sunu borom nee na wattaqullaha ragal leen yàlla in kuntum muminin bu fekkee ne gëm ngeen yàlla in harfa lan la in harfa charte la yàlla nee na bu ngeen ragalee yàlla kon lan ngeen di def mooy da ngeen di bàyyi ñi jàpp diine def ko fawukaay sunu borom nee na wa isa naadaytum ila salaati bu ngeen wootee jëm ci julli ittaxazuha huzwan ñu jël ko fawukaay wallahi iza naadaytum ila salaati bu julli jotee ba ñu nodd ba ñu dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar ñu ne waa mbaam bi lu muy ŋaax nii moom loolu lañ daan wax ñu ne lii comme ay comme ay mbaam yuy ŋaax waaw iza samiul azan yunaada li salaati suñu déggee nodd ah ñuy nodd li ca màkka la woon xam ngeen ne màkka nodd amu fa woon lan moo fa amoon mooy asalaatu jaamia màkka doon nañ julli mais daawuñu nodd wa lamma haajara rasul sallallahu alayhi wa sallam bi yonent gàddaayee jóge màkka dem Médine ñu daal di soppi xibla bi jële ko baytul maqdis yóbbu ko masjidul haram yóbbu ko ca Kaaba ga fa la ñu santaanee nodd ñu daal di bàyyi baatu asalaatu jaamia nodd xam ngeen ne Abdallah ibnu Zayd al ansaari moom moo tëdd guddi di nelaw mu daal di gis ab malaaka bu ñëw di ko jàngal naka la ñuy noddee léegi nag yahud yi bu nu déggee nuy nodd di ko yëkkati ca kaw ñu daal di koy jël def ko fawukaay ak caaxaanukaay ñu naan waa baat bi nag ma haza sawt baat bi lu ko waral ñenn ñi naan haza nahiqu ximaar lii de moog baati mbaam nuroo sorem tawuñu ndeysaan wa iza naadaytum ila salaa su ngeen wootee jëm ci julli ci nodd al azan mbokk yi fardun fil mudun fa nodd farata la ci dëkk yi ak ville yi kaw gi ak dëkk bi ah nodd farata la fi xeet bu nekk suñuy julli sunna la ci ñoom ñu nodd sopp nañ ki nga xam ne mooy noddukat bi moom moo war a liqaam waaw su keneen liqaamee nag baax na waaye liñ gën a bëgg ci sharia mooy noddukat bi na nekk kuy liqaam yonent alayhi salaatu wasalaam nee na su ngeen tukkee balaa ngeen a julli noddu leen bu ngeen teewee balaa ngeen a julli noddu leen ndeysaan ci ngëneel yu rëy yu nekk ci nodd yonent alayhi salaatu wasalaam tukkeem yépp balaa mu daan julli dañ daan nodd waaw bokk na ci ngëneelu nodd yonent bi nee na laa yusma mada sawtul muazzin jinnun wala ins wala shay illa shahida lahu yawma alqiyama bokk na ci ngëneelu nodd yéen noddukat yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki dara du dégg baatu noddukat bi dara du ko dégg jinne du ko dégg nit du ko dégg dara du ko dégg lu dul ëllëg yowmal qiyaam dina la seedeel allahu akbar wa hada sawaab amun liman azana fi safari aw il xadar nee na yiw woowu tiyaaba boobu ñépp a ko bokk moo xam kii nodd dafa nodd ci tukki moo xam kii nodd dafa nodd ci teew bu fekkee iqaama la nag lan mooy différence entre iqaama ak nodd luy différence bi nodd ak iqaam luy différence bi ah nodd ñaata yoon la ñaari yoon ixaam benn yoon nodd woote la ñëw leen ñu julli ndeysaan benn waay nee na bu sa portable sonné nga xool gis numéro looy sentir kenn ci ñun bu portable am sonné lu muy sentir dafa am ku bëgg a jokkoog yow ah léeg-léeg sax waa Sonatel ne la leen saay waa Sonatel ne la ci olof négal tuuti mu jël la ki ngay woo am na ku ngay ku muy jokkool négal tuuti mu jël la ndeysaan ngay woo nit ñu wax la loolu yow yaay woote lañ la wax loolu waaye bu dee yow dañ laa woo nag nga xool di gis portable lu sonné li ngay sentir mooy dafa am ku bëgg a jokkoo ak yow mbokk yi saa yoo déggatee hayya ala salaa saa yoo déggatee allahu akbar allahu akbar yëgal ne yàlla moo bëgg yow nga jokkoo ak moom yàlla bëgg yow mii nga jokkoo ak moom ndax kenn ci ñun mbokk jullit yi yéen ñi toog fi ci jàkka ji sa portable dina sonné nga xool gis numéro ki nga gën a bëgg bu doon ab célibataire la mu gis xale bu jigéen bi nga xam ne moom la préféré ci xolam moo koy woo tarararar mu xool gis ko li muy njëkk a sentir mooy lu muy def lu muy njëkk a def kanamam gi di ngeen moo day muuñ gis numéro bi yàkkamti lu muy décroché yàkkamti lu muy taf ci nopp bi yàkkamti lu muy dégg baatu allahu akbar kon saa yoo déggate allahu akbar lu raw loolu nga war a def ci sa kanam gi ndax lan yàlla moo bëgg yow mii nga jokkoog moom kon est-ce que dina jaaru ci yow nga dégg allahu akbar xëcc mbàjj mi ah wala ngay nelaw nelawlu wala ngay gëmmintu gëmmintulu wala nga topp ataaya bi naan ba ñu ataaya ba pare saa yoo déggate allahu akbar allahu akbar yëgal ne yàlla bëgg na nga jokkoog moom allahu akbar mbokk yi yàlla bëgg na nuy jokkoog moom moo tax mu nuy woo naan ñëw leen jokkoog man hayya ala salaa loolu muy tekki mooy ñëw leen ci julli gi hayya ala falaa lu muy tekki mooy ñëw leen ci texe gi nga bëgg a continuer li ngay def ñu ne la allahu akbar li ngay def yàllaa ko gën a màgg allahu akbar li ngay def yàllaa ko gën a màgg nga bëgg a continuer ñu ne la laa ilaha illa allah amul benn yàlla bu ñu war a jaamu bu dul yàlla loolu la laa ilaha illa allah di tekki amul yàlla bu ñu war a jaamu jaamu gi nekk njëriñ ñàkk jaamu nekk lor ku dul yàlla loolu mooy laa ilaha illa allah su ko defee yahud yi ñoo daan dégg nodd di ko saboté naan mbaam buy ŋaax la yàlla ne wa isa naadaytum ila salaa su ngeen wootee jëm ci julli ittaxasuha huzuwan wa laiban ñu jël ko def ko caaxaan ak fo lu tax zalika bi annahum qawmun la yaqilun ndax ay nit yu amul xel lañ nit ko amul xel mbokk yi xel mooy nit xel mooy nit ku amul xel nekkatoo nit ku la ëpp xel ku la ëpp xel moo la mën waaw xel nit ñaa ngi rawante ci xel ñun lan lañ tanee rabu àll yi ah xel yenn saa nga gis koo xam ne problème bi mu am xelam moo ko ci génne ndànk la toog ndeysaan nit su ko yàlla mayee xel daf ci war a xalaat waaye kurul xalaat ci sa xel waa safara bañ duggee safara lan lañ doon réccu lan lañ wax ne moo leen dugal safara mooy ñàkk xalaat seen xel wa qaalu law kunna nasma aw naqil maa kunna fi ashabi cey ñun cey buñ doon xalaat ci sunu xel yi kon tey duñ dugg safara kon yàlla lan la xasee yahud yi nee na zalika bi annahum qawmun laa yaqiluun yàlla nee na yahud yi ay nit lañ yoo xam ne xelu wuñu am nañ xel waaye duñ ci xalaat ndeysaan nga kuy kuy sëy ak yaayam kuy donnaat yaayam di sëy ak ay sëram di sëy ak ay frèram est-ce que kooku am na xel ndeysaan wallaay xam nga ne yàlla li mu wax mooy dëgg xaqan innahum la yaqiluun ci dëgg wallaay amuñu xel falaw kaanu yaqiluun su fekkoon ne am nañu xel dinañ dégg wax la kaana nida ila salaat ndax kon danañ xam ne woote jëme ci julli min atya bi dafa bokk ci li gën a teey maa yusmaul uqala loo xam ne xel yi danañ ko nangu borom xel yi danañ ko nangu nga jékki-jékki dégg allahu akbar allahu akbar loolu nga ni lii ak mbaam muy ngaax ñooyam xam nga ne yow amoo xel yàlla rek a màgg yàlla rek a màgg allahu akbar dafa am benn jàkk bu may gis ci internet bi ñu ne jàkk ji dañoo tere woon ku fa nodd ñu éliminer jàkk ji waxtu julli jot haut-parleur yi commencé nodd ñëpp ñëw journaliste yi police ñëw autorités yi ñëw ñu wër ba sonn gisuñu kuy nodd rajo bi di continuer di nodd gis ngeen ko doon dëkk la États-Unis ñu ne fii kenn du fi nodd waxtu wi jot rek haut-parleur yi déclenché gaa yi ñëw di wër nodd bi xamuñu kiy nodd fu mu nekk ndeysaan France amoon na temps ñu ne kenn du fi nodd loolu xewoon na Sénégal Sénégal amoon na temps ñu ñu bëgg a wote benn loi pour nañu arrêté nodd yi allahu ñu ne nodd yi rajo yi dañoo bëri quoi immeuble yi dañuy aw day déranger nit ñi benn procureur ci France dafa ne woon day tere nodd mu convoqué imam benn imam ci imam yi mu ne ko nodd bi laa bëgg ngeen arrêté ko imam bi ne ko concorde est-ce que mën ngaa téye riiru concorde xam ngeen concorde fii ñu bëri xamuñu ko de concorde avion la woon avion la woon bopp bi bopp lan la woon bopp cieli la bopp bi tubaab yee ko defaroon bopp bi bopp cieli la deux moteurs la am du naaw du tiim dëkk bi ci géej gi rek lay jaar ndax bu tiimee dëkk bi rek nit ñi dañuy tëx ndax riir bu foor imaam bi ne ko ndax yow mën ngaa tere su concorde naawee riiram bi mën ngaa fexe nit ñi duñ ko dégg mu ne mënuma ko de mu ne ko kon nodd bi mënoo koo téye comme mënoo téye riiru concorde kon mënoo téye nodd bàyyi ñu nodd allahu akbar mbokk yi nodd day dàq seytaane benn waay bu nekkoon ci daara ji nee na ma seen dëkk amoon na jàkka joo xam ne ku fa nodd rek da ngay dee nee na moom mu dem jàngi ñëwaat benn ngoon rek mu song jàkka ji ñoo rek nodd nee na bi muy nodd yamb yi dañoo jógee ci àll bi ñoo tag ci garab yi mu ne dëkk bi yépp génn di xaar kii bu paree noddu yamb yi dañ koy rey nee na mu noddu ba pare toog ci jàkka ji mu ne julli jot kenn ñëwul ndax nit ñi dañoo jàpp ne bu ñu ñëwee dañuy dee mu daal di julli génn romb yamb yi ñibbi këram papaam ne ko boo noddatee ci jàkka ji ma génn dëkk bi boo noddatee ci jàkka ji rek ma génn dëkk bi man damay génn dëkk bi toxu waaw papa ji wax ak moom mu ne ko waa baax na nee na loolu tisbaar la woon tàkk saan jot noddul nit ñi naan ñëw lu tax noddul tisbaar bi tàkk saan bi yéen timis jot rek mu jàmbaat ko ci nee na foofu lañ jógee ba léegi dañuy nodd yamb yi ñëwatuñ du ay yamb seytaane la sa say ba mos na ma nettali ne am na dëkk boo xam ne biñ fa demee dañoo nodd ay tan ñoo jógee ci kaw asamaan si wàcc ay tan nit ñi dañ yaakaar ne loolu nag ay céeli la fekk seytaane la ñun demoon nañ benn dëkk boo xam ne dëkk baa ngi tudd Ndoyeen Séeréer affaire baa ngi ci internet bi biñ fa demee dañ doon sulli xàmb yi buddi xàmb yi biñ fa demee jàkka ji ñu wàccoon jàkka ji tabala lañ daan tëgg duñu noddu tabala bu julli jotee dañuy jël benn benn liif daal di koy dóor ci ndënd bi rën rën rën nit ñi ñëw julli dañoo ñëw dañoo yóbbaale suñu groupe luy ay rajo yóbbaale bi ñëwee monte rajo yi taal groupe bi julli jot rek ñu ne Moussa Thiam xam ngeen Moussa Thiam mu ngi France instant yi ak a mënoon a nodd comme mbokk bi ñu ne ko noddal rek ubbi rajo bi bi ñu paree am na benn mbokk tudd Mouhamed Baylo Ba mu dugg ci jumaa ji daal di fëq ndënd bi waaw ñun ñëpp ñibbi si dara dalunu dañ doon wax ne fii ku laal ndënd mi dee ñun ñëpp a ñibbi si boo baag léegi ñaata at la ah boo baag léegi ñaata at la mbokk yi kenn xamu ko est-ce que mosul fukki at mu ngoog kon da ngay dem ci ay dëkk tey ñu ne la fii kenn du fi nodd wala fii ku fi nodd dee loolu du dëgg kàddu yàlla fu mu jib la fa nekkoon daw seytaane bi mooy menacé nit ñi rek naan fi ku fi noddu dee ku fi noddu ay yamb màtt la ku fi noddu nangam nangam waaye wallahi allahu akbar allahu akbar du jib fenn seytaane nekk fa di xaar bal da la fa dul xaar parce que xam na mën na ñëw nag di la tiital comme waa jooju daal di fatt noppam yi ne allahu akbar allahu akbar yamb yi ci àll bi yëpp dajaloo ci garab gi di ko xaar tey bu amuloon imaan rek da koy dagg daw bu ko daggee daw rek yamb yi topp ko waaw mu ngoog yàlla moo ne seytaane yenn saa yi day ñëw pour tiital leen fala taxaafuuhum bu leen leen ragal wa xaafuuni na ngeen ma ragal man yàlla waaw waaye tey ci àddina bi fu ñu toll mooy nit ñi bu ñu xamoon li nekk ci nodd kon ku nekk sax sa kër boo doon julli di nga fa nodd waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu jàngal mu ngoog kon yahud yi ñooy ñi amul xel ba biñ déggee nodd ñu ne lii dey moog baati mbaam ñoo yem comme ngaaxi mbaam yàlla lim leen jox adresse mooy li tax ñu wax loolu mooy dañoo amul xel moo tax waaw dañoo xelwul dañ dul jëriñoo seen xel laa yaqiluuna wallaay mu ngoog am nañ xel mais dañ koo jëriñoowul xel mi duñ ci xalaat parce que xel li muy jar xalaat jëriñ mooy xalaat sunu borom subhanahu wa taala mu ne qul waxal yow muhammad yaa ahlal kitaabi ay yéen ñu téere hal tanqimuuna minna bañewu leen ñu illaa lu dul an amanna billahi ñun gëm nañ yàlla amanna billah loolu rek ngeen ñu bañee dëgg la wallahi àddina bi bañewuñ ñu dara lu dul dañoo gëm yàlla rek loolu dong lañ ñu bañee lii nag yahut ak nasaraan la yàlla adressé kàddu gi ne yaa ahlal kitaab yi yéen ñooñu téere les gens du livre yéen ñi nga xam ne yàllaa leen joxoon ay téere waaw na nga leen tontu ne leen ñun de danoo gëm yàlla amanna billahi danoo gëm sunu borom lan ngeen ñu bañe nag bañewu leen ñu lenn lu dul gëm gi ñu gëm sunu borom rek waaw hal tanqimuna minna illa ludul an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aksarukum fasiqun yàlla subhanahu wa taala ne yéen yahud yi ak nasaraan yi bañewuleen julit yi lu dul yéen julit ñi na ngeen wax ne na ngeen leen wax ne bañewuleen ñu yéen yahut ak nasaraan lu dul ñun ñii amanna billahi danoo gëm yàlla muy sunu borom gëm muhammad muy sunu yonent ñu gëm lislaam muy sunu diine loolu daal ngeen ñu bañee al imaanu billah bi ñu am gëm ne yàlla mooy kenn malaaka yi ay jaami yàlla lañ gëm allaaxira gëm téere yi gëm yonent yi gëm dogal li ci neex ak li naqari loolu al loolu mooy al imaanu billah al imaan juróom benn mbir la xol bi moo koy liggéeyal yàlla juróom benn yépp gëm yàlla fu muy nekk gëm malaaka yi lu koy def gëm yonent yi lu koy def gëm téere yi lu koy def ah gëm dogal lu koy def yëpp xol bi la amma al islam nag cër yi ñoo koy def cër yi cër yi bët bopp bakkan tànk loxo hmm, cër yi loolu mooy cër yooyu ñooy dund lislaam kon juróom benn mbir yi xol bi la cër yi mooy def juróomi mbir yi muy islaam benn bi mooy ihsaan mooy xol bi li muy gëm cër yi koy def na rafet mooy al ihsaan an taabudullah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak bi ñu laajee yonent lan mooy ihsaan lan mooy rafetal mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yàllaa ngi lay gis ndeysaan gis nga tey waxuma la sax yàlla waaye boo doon liggéey ngay bale sa patron taxaw moom ngay baleel mu taxaw nooy bale ah xoola ñi bale tali yi ñi bale tali yi nga xam ne yenn saa yi dañ leen di garder dafa am ñu leen di surveiller dañuy jékki-jékki rek oto bi droité nga gis waa ji di di rey boppam ah fi mu bale woon bale bi dina fa dina ko dóor ñetti yoon ci benn place ah parce que sa patron moo taxaw soo doon togg ki ngay toggal taxaw nan ngay préparer togg boobu ah nan ngay préparer togg boobu ci bagage yi ci ndugg ba parce que ki ngay togg nee na maa ngi lay xool de man waaw maa ngi lay xool li ngay togg nan ngay def day gis waa ji yére yi du yére yi mu doon sol lay togge de day dem sax ut benn morceau boo xam ne da koy ñëw uniquement pour togg ah sol ay dàll yoo xam ne uniquement pour togg def musóor boo xamante ne uniquement pour togg loxoom yi minute bu nekk dina ko sóob ci ndoxum eau de javel taxawaat yor ay morceaux yu muy fompoo bëgg rek ñu ne ki ya set ki ya nangam ngir rek ki ngay toggal kontaan wala su fekkee ki ngay liggéeyal moom nga bëgg mu lay xool kontaan ki ngay toggal moom nga bëgg mu lay xool kontaan kon ki ngay jaamu nag yow mi taxaw ci kanam yàlla ne allahu akbar nga xam ne yàlla ngay jaamu yàlla ngay jullil kon julli googu noo ko war a jullee boobu ndaw la su fekkoon ne bi ngay julli bi nga ne allahu balaa nga ne akbar rek malakal mawti dama ñooy sa nopp ne la man la malakal mawti soo paree julli nag da ngay dee dee nga nga ni nii gis ko mu taxaw julli googu mbokk yi noo koy jullee ah damay laajte su doon kenn ci ñun la fii julli googu noo koy jullee ah allahu akbar bi rek dal loxo yi di nga ne nii allah loxo yi ndeysaan fi nga koy teg cey njàng mi allah cey tëj wit googu loolu kenn du ko fekk bis boo tëjwitee ci jàkka ji bari ñëppay dee ruko yi ndaw ko yu mag ndaw siggi wi ndaw julli goo xam ne kenn yàkkamtiwu ko kenn du ko def fat fat de taf taf dóor mu daanu gaawal ñu ndogu ji allahu akbar waaw bu fekkee ne yow su fekkee ne pourtant julli googu lan nu sant de salli salaata mutawaddi yonente bi nee na booy julli jullil julli goo xam ne boo sëlmalee da ngay dee jullil julli goo xam ne boo sëlmalee ba pare da ngay dee da ngay tàggoo yow yaa ngi dem dootoo julliwaat imaginel su fekkente ne bu ñuy liggéey dara ñi ñu koy sant bu ñu taxawee ñu rafetal ko bu ñuy xool ñu rafetal ko yàlla mi nga xam ne nag bis bu nekk gisam mu ngi tegu sunu kaw ñuy julli ci kanamam ak di ko jaamu lu tax mbir yi du rafet hmm? kon foog ñu delluwaat te fekk taxawoo ci sa jaamu yàlla boo koy def nga def ko comme yàllaa ngi taxaw ci lépp lu mun doon nag sarax jàpp jàngal Qur'an lépp soo ko deful comme yàllaa ngi taxaw rek du baax lépp
waaw daa am benn dëkk bu ñu nekkoon. léegi nag waaw commencé na bàyyi ko mu continué rek dafa am benn pakistanais bu jënd immeuble waaw immeuble bu mag la ñu bëri ñu si nekkoon léegi bu ñu jëndee immeuble bi Mhm.
côté bi mu def si jàkk Mhm.
léegi nag gars yi ñu dëkkoon si immeuble bi ñëw réclamé quoi ñu ne ñun vraiment note bi daf ñuy gêné daf ñu gêné comme comme réew nit mu ne ah moom daal mënul mënul supporter nodd note bi nga toxu ci immeuble bi dégg nga yàlla dafa ñëpp jëf xam nga immeuble dafa bari pare mais moom mu toll yàlla dafa julli bi jëm ko foofu daf nañ ko jàpp julli julli bi dafa fees ba nit ñi di xaar allahu akbar yàlla def vraiment ci affaire bi gën a affaire am gën a chiffre d'affaire am gën a dox euh, par rapport à avant man taraka shay'an lillah awadallah xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla rek yàlla jox la lu ko gën dégg ngeen lu mu wax nee na dëkk bi mu nekk dafa am benn pakistanais bu fa jënd benn immeuble bu mag daal di fay def jàkk mu ne ñi fa doon ñi nekkoon ci immeuble bi comme duñ ay julit ne ko yow sa jàkka bi daf ñuy teree nelaw daf ñuy gêner ndax nodd yi mu ne leen fii daal ku fi bëggul dëkk toxul nee na immeuble bi yëpp toxu nee na moom kenn mu des fa ak jàkka jeeg immeuble bi nee na tey immeuble bi daa fees jàkka ji day fees ba nit ñi taxaw di xaar place ku bàyyi dara ngir yàlla rek yàlla jox la lu ko gën waaw ku bàyyi dara ngir yàlla ah benn waaye noonu la def fii jógee France ñëw fii Sénégal di ut kër ñu koy won kër gi di ko ñu yéegal ko ci kaw immeuble bi nag di ko won ndeysaan bu taxawee ci immeuble bi ni muy jàkkaarloo géej gi mu ne nii di xool rek mu gis soror mu ne ça c'est quoi ay na ko mosquée mu ne "Ouh, mosquée c'est pas bon waaw mu ne moom mënut a dëkk ci kër googu ndax bu dëkkee ci kër gi du nelaw ndax nodd yi gis nga ma ñu wax ma wax ji ma ne waaw jullit bi ko yóbbu di ko luye këram moo ko def loolu mooy sunu problème ñun ñëwuñu ci àdduna pour nelaw ba xandoor déedéet su la dañoo ñëw fi pour nelaw kenn du la ne asalaatu xayru min an nawmi ñëwuñ ci àdduna pour nelaw nelaw indiwuñ fi ñëwuñu fi pour lekk yàlla nee na inna alladina kafaru yaakuluuna wa yatamattaun wa naaru maswan lahum ñëwuñu fi pour noos ñëwuñu fi pour takki jabari ci doom ñëwuñu fi pour dajale alal lan mënu fi indi jaamu yàlla lan fi romb moo tax gis nga da ngay romb rek dee foo nga jëm àllaaxira ñi nga xam ne nag dañoo ñëw fi pour noos ñoo ñëw fi am gêne ñoo ñëw fi feebar mu métti leen ñoom ñooy ñàkk mu métti leen ñooy xiif yëg ko ñooy mar yëg ko ñooy bëgg a nelaw di sentir ne am na lu leen manqué am maa ñun yooyu indiwuñu fii bu leen yaakaar ne nelaw adduna bi nelaw moom xaaral ma dem nelaw yi waay déedéet tuuti rek da ngay nelaw pour noppalu wa jaal na leyla libaasan wa jaal na nahaara bëccëg dañ ko def pour nga dem liggéeyi bu guddee nga noppalu tuuti soo nelawee nga amaat énergie tuuti nga jóg départ mu ngoog waaye bis boo jàppee ne nelaw moom ma fi indi noos moom ma fi indi man ak yéeféer yi ñooyam ngay nax sa bopp boo moytul boo dee fekki leen fu ñu jëm la la yàlla di dugal mbokk yi sunu borom nee na mu ngi jàngal ne nu yéeféer yi lan nu bañee du lenn lu dul nun danoo gëm yàlla danoo gëm wa ma unzila ilayna li yàlla wàcce ci ñun wa ma unzila ak li yàlla wàcce woon min qablu démb ñun lii la nu yéeféer yi bañee gëm gi ñu gëm yàlla gëm gi ñu gëm li yàlla wàcce ci ñun muy alquran gëm gi ñu gëm téere yi démb yi ak yonente démb ya loolu la ñu ñuy bañee ñun yépp lañ gëm gëm nañ tawraat gëm nañ injil gëm nañ zabour gëm nañ alquran gëm nañ Muusa gëm nañ Isa gëm nañ Daawud gëm nañ yàlla sunu boroom gëm nañ Alquran gëm nañ Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam lii la nu yéeféer yi bañee yu weexee yu ñuuli lii la ñu waa ahlul kitaab bañee yàlla mu ne wa anna aksarukum fasiquun li ëpp ci yéen nag ay kàccoor lañ waaw wa anna aksarukum fasiquun li ëpp ci yéen ay kàccoor lañ lan mooy kàccoor mooy koo xam ne da ngaa génnuk topp xaarijuuna an taatillahi taala bil kufri wal maasi dañoo génn ci topp yàlla la leen ca génne du lenn lu dul ak kéeféer ak ay bàkkaar yu bari sunu borom subhanahu wa taala nee na qul waxal yow muhammad hal unabbi'ukum ndax du ngeen ñëw ma xabaar leen xamal leen bi sharrin min zalik lu gën a bon lii lu gën a bon lan ah lu gën a bon mokke diine lu gën a bon mokke nodd li gën a bon bañ jullit kaay leen ma wax leen yii lu ko gën a bon ñu ne yàlla lan la mu ne masubatan indallah ci delluwaay ci yàlla man la anahullah koo xam ne yàllaa ko rëbb voilà baat bi muy baatu la an keroog ba ngeen déggee waajooju sant ñas mu génn ci benn télé ne mees dara nekk ci gars yi na ko lu tax mu ne hadis bay wax ne mees dafa araam hadis boobu wirut ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ndax yonent bi du rëbb nit muy dund yonent bi du wax la anallah ba pare yonent rëbb nit kooku nit kooku di dund waaw yonent bi ak yàlla ko gën a màgg yàlla rëbb ay nit ñuy dund man la anahullah wala fan yi damaa télé damaa téléchargé woon sax ayatul la an aaya yi woone rëbb yàlla subhanahu wa taala rëbb na ay nit nit ñooñu di dund kon tekkiwul sayyiduna muhammad bu rëbbee nit nit kooku dootul dund déedéet beneen bi mooy rëbb mooy lan mooy yal na leen yàlla sori yërmande ëllëg yowmal xiyaam loolu la baatu la an li muy tekki mooy sori yërmande yàlla waaye tekkiwul ne dootuñu dundati sunu borom subhanahu wa taala dafa wax yonent bi kaay ma wax la hal unabbi'ukum ndax duma la xabaar arawiya anna lamma nazala al aya qul hal nunabbi'ukum bi sarrin min zalika ilax qaala almuslimuuna lahum ya ixwat alquruud walxanaazir nakasuu ru'uusahum ndeysaan iftidaahan wa fihim yaqulu shaa'ir fa laanatullahi ala alyahud inna alyahuda ixwatu alquruud bi aaya bi wàccee kaay leen ma wax leen lu gën a bon ci ñii li ñuy def bi charrin min zalika li gën a bon masuubatun delluwaay indallaay ci yàlla man laanahullah bi aaya bi wàccee jullit ñi ndeysaan daal di ne yéen mbokki golo yi yéen mbokki mbaam xuux yi ñu wax ko yahud yi ndeysaan ñu seen yahud yi di sëggal seen bopp yi ndax am kersa ndax am gàcce ndax yàlla moo ne leen ay mbaam xuux lañ ak ay doomi golo xas weesuwul yàlla ne ñii dama leen a rëbb waaye yow ma ci loolu wa ghadiba allahu alayhi yàlla ne na dama leen a mere yàlla yemul ci loolu mu ne wa jaala minhumul qiradata ma def ci ñoom ay golo ak ay walxanaazira ak ay mbaam xuux allahu akbar mu ne xam ngeen ne lii sunu borom subhanahu wa taala wax ne man yàlla maa leen def ay golo ak ay mbaam xuux waaye la ko jiitu sunu borom subhanahu wa taala nee na man laanahullah nit ñoo xam ne waajoo xam ne yàllaa ko rëbb loolu ñëpp a ko war a mooy tandiku dafa am ay aaya ci alquran aaya yaa ngi tudd aayatul laan ay mbir yoo xam ne ku ko def rek yàlla rëbb na la ñëw na ci sunna yonent alayhi salaatu wasalaam lu ëpp ay téeméeri téeméeri hadis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku def dara yàlla rëbb na la ku meesu bokk na ci yàlla rëbb na la ak lan
bi doog moom
ak lan topp waajur ak lan dafa bëri laan même sàngara kuy naan sàngara yàlla rëbb na la ay du jeex ci alquran ak hadis yi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ku def dara yàlla rëbb na la alquran ne ku def dara ne yàlla rëbb na la yàlla yemul ci rëbb ñi waaye wa ghadiba alayhi yàlla mere na ko ku yàlla mere foo jëm benn borom xam-xam bu mag dafa ànd ak mbokkam ci digg àll bi asamaan si di dënu dënu bu métti melax yi di melax dënu yi di xaaju taw bi wàcc mbir mi lëndëm boroom xam-xam bi daal di xool mbokkam bi ne ko haza min asaari rahmatillah lii ngay dégg nii ak di ko gis mu ne ah mu ne ko yërmande yàlla mooy wàcc kon fa kayfa isa ghadiba kon yàlla bu meree nu muy mel a mbokk yi su fekkee asamaan bu lëndëmee dënu yi di xaacu melax yi di sànni ndox mi wàcc di walangaan ñu ne yàlla kontaan kon su meree nu mu war a mel hmm? ah dënu day rey nit xam ngeen ah allahu akbar ñu ne suy dënu yàlla dafa kontaan kon su meree nag allahu akbar te yowmal xiyaam yàlla dina mer de yàlla dina mer ba yonent bi mel ne da koy jàpp yàlla naan ko zarni wal mukazzibin uli ni'mati wa mahilhum qalila zarni wa man xalaqtu wahida allahu akbar bàyyi ma rek yow muhammad tey ak gaa ñi nga xam ne man maa wéetoon bind leen wa jaaltu lahu maalan mamduud ma may ko alal ju ne gàññ wal banina suhuud ay doom yoo xam ne fu mu dem doom yi ànd ak moom escorté ko wa mahattu lahu tamhiid ma yaatalal ko ba mu yaatu waaye mu dem di ma mooy tey nag ma bàyyee gaa yooyu mbokk yi meru yàlla xejul ci nit yàlla bu nu yàlla mere waaye yahud bokk na ci seen melokaan yàlla da leen a mere ah waaye yàlla yemul ci mere leen kese kese kese wa jaala minhum yàlla def ci ñoom alqiradata ay golo lan moo taxoon yàlla def leen ay golo yàlla da leen tere woon rëbbi samedi nappi samedi nappi samedi haa laa taatadu fi sabti bu leen jalgati samedi pourtant yàlla tere na waa Sénégal jalgati samedi de te bu samedi dañuy jalgati samedi gaa yi bëri dañuy baali dugg ci boîte de nuit yi dugg ci night club yi ah te yàlla nee na laa taatadu fi sabti bu leen jalgati samedi yàlla tere leen nappi samedi ne leen samedi moom bu leen demati dex bu leen demati géej ga toog leen seeni biiri kër moo tax yàlla mën a natt su samedi jotee rek jën yi fees del del del del del del del ci géej gi jën yi yemuñ sax ci fees géej gi waaye jën yi dañuy fees ba ñëw ci tefes gi di boronzo wu ubbi seeni caaxoñ yi di jël di jël di jël ngelaw waaw gars yi ñëw di xool di gis jën yi jën yi naa leen ñoo tey ñoo ngi nii de da ngeen laal ñu rek gars yi nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu lii daal xam nga lan la nga yàlla mii daal war nañu seetaat ay mbiram ñun dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi duñ gis dara samedi jën yi ñëw wëy ba pare yàlla ne bu kenn laal jën yi samedi loolu mënul nekk ñu dajale waa dëkk bi réunion ñu ne léegi xam nga nu ñuy def ñu ne ñu ne bu samedi jotee dañuy jël mbaal yi koj jën yi suñ bàyyee ba jën yi génn ah fees ñu koji mbaal yi samp mbaal yi kar ba jën yi duñu mën a daw dellu suñ sampee ak bant yu dëgër ba jën yi duñu mën a daw ñu bàyyi foofu mbaal yi nag ñu ñibbisi dimanche ñu ñëw jëli bu yàlla waxee ñu ne ko gis nga dimanche lañ nappi bu ñu indil benn problème dëkk ba daal di xaaju trois xaaj ñenn ñi ne ñun sunu yoon nekku ci ñun demuñu tey demuñu ëllëg ñeneen ñi nekk fa di leen waar naa leen ragal leen yàlla xam ngeen ne lii ngeen di def ay pexe la yoo xam ne pexe doomu aadama la dem ko- kar jën yi samedi dimanche ngeen jëli leen troisième groupe bi moom ñu ne ñun suñu yoon nekk ñun dañuy dem bu ngeen ñu waaree bu ngeen ñu waarul suñu yoon nekk ci yàlla bàyyi leen ba samedi jot ñu gàdd seeni mbaal ak seeni gaal dugg ca biir géej ga yàlla bàyyi leen ba ñu wàcc gaal yi jël bant yi samp mbaal yi bay ñibbi yàlla def leen ay golo ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp ñu ñibbi nekk ay golo tout li ci doy waar mooy ba ñu ñibbee ñañu tàgg woon ñooñu dañ leen a xëy kii du diw kii du diw nga ni nii sa bopp man la kay nee nañ yàlla dafa def góor ñi ay golo mu def jigéen ñi ay mbaam xuux mooy li muy wax fii wa jaala minhum alqiradata walxanazir ñu ne déedéet yàlla da leen a jaxase rek daf leen diviser def leen ay groupe waaw ñii mu def leen ay golo ñii mu def leen ay mbaam xuux soppi leen ñoom ñëpp ñi nekk ay golo ñi nekk ay mbaam xuux mu ngoog yamu ci waaye wa abada taaxuut mu def leen ay jaamukatu xërëm allahu akbar gis nga kon banu israil xool leen aaya bi musiba bi njëkk a dal seen kaw mooy yàlla da leen a rëbb neel benn ñaareel mu mere leen ñett mu def leen ay golo ñeent mu def leen ay mbaam xuux juróomeel mu def leen jaamukatu xërëm gis nga ba pare ñii bu leen ay bu jullit bëggee roy fu ñu jëm yàlla nee na ulaayka ñii charru ñoo gën a bon makaanan place safara ëllëg yowmal xiyaam lan jëm wa adallu ñoo gën a sànk an sawaa'i sabil ci dëgg-dëgg yoon bu jub waaw borom bi wax nañu ne ñii jaala minhum man abada taaxut ñoo xam ne dañuy jaamu xërëm wa huwa shaytaan wa zalika bi taatihi ci topp ko giñ koy topp wal inqiyaadu ak wàmmatu giñ ko wàmmatul lima yajulluhu alayhi ndax dañ koo topp wa yuzayinu lahu min charril fasad mu leen di taaralal mbon ak yàqute moo tax mbooleem société yi yàq adduna yi tax nit ñi duñu nekk ay nit da ngay fekk ñan ñoo ko moom yahud yee nekk ci ginnaaw am na société yu bëri yu nekk ci àddina bi na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax yahud yee ko moom waaw bépp société boo gis ñu dessiné ci mbax ne ndëppal buur yow dee ko moom bépp société boo gis ñu def ci S mu am serpent yow dee ko moom bépp société boo gis ñu def ci R R croix yow dee ko moom hmm? société yëpp xam nga luy seen liggéey liggéey pour grand Israël am yahudi yor nañ benn carte bu tudd la grand Israël madinatul munawar ci la bokk te ñoo ngi liggéey lu ko def de moo tax bis bu nekk soo demee Liban am na luñ fa nangu Syrie am na luñ nangu Palestine jël nañ lépp Jordanie jël nañ ci dara Égypte jël nañ ci dara ak fan dëkk yi Israël frontière yëpp am na lu Israël nangu ci dëkk ya gis nga noonu la ñuy nangoo partout di nangu di nangu di nangu ba bis ñëw ñu egg màkk benn jigéen day aji jóge Palestine di dem yahudi ne ko foo jëm mu ne damay aji ñu ne ko soo demee nga ni waa màkk ak waa Médine ñoo ngi ñëw nangu sunu suufu maam ndax foofu Ibrahima ko moomoon kon nan leen yeew mbokk yi nelaw yi metti na biddanti nan nañ leen yeewu yeewu jot na sunu borom subhanahu wa taala nee na ñii nii ulaayka ñii di yahud yi nga xam ne yàlla rëbb na leen yàlla mere na leen def ci ñoom ay golo ak ay mbaam xuux ak ay jaamukatu xërëm ñii ñoo gën a bon place ëllëg yowmal qiyaam bu yàlla dekkilee jaam ñi ndax safara dong la leen yàlla du yóbbu amul beneen place bu dul loolu mu ne wa adallu ñii ñoo gën a sànku an sawa i sabil ci dëgg-dëgg yoon bu jub bi ñii musuñu xalaat sax yoon bu jub ba ciy jaar kon mbokk yi lii mooy darsa tey noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu